remercier les militants, mais le peuple sénégalais. Le peuple sénégalais qui mobilisé à manifesté son désir d'avoir des élections. Le peuple sénégalais qui a manifesté une ferme volonté de sauvegarder son peuple, de le maintenir dans la démocratie, de, de, de sauvegarder son, ses acquis, de maintenir les acquis démocratiques, les acquis démocratiques obtenus de haute lutte. Ce magnifique peuple a choisi, a placé Ousmane Sonko dans son cœur. Ce peuple intelligent a observé Ousmane Sonko, a suivi Ousmane Sonko, depuis son bureau des impôts et domaines, ce peuple a admiré l'abnégation de Ousmane Sonko, son esprit d'équité et de justice, sa façon de voir les choses avec équité, mais sévérité. J'ai vu quelque part dans les réseaux les analyses de Ousmane Sonko qu'on pouvait appeler ses vérités. Ces vérités qu'il a l'habitude de décliner, même si ça doit toucher ses propres intérêts. J'en sais quelque chose pour avoir été avec lui à l'Assemblée. Ousmane Sonko a été porté par le peuple, malgré tout ce qu'il a subi, malgré la diabolisation dont il a été victime. Aujourd'hui, Ousmane Sonko a rendu au peuple son amour. Parce que le peuple a plusieurs priorités. La première priorité, c'est de dégager ce régime moribond. La première priorité, la deuxième priorité, c'est de, de dégager ce régime qui ne connaît pas les priorités. Ce régime qui n'a pas de tolérance. Ce régime qui tue nos enfants. Ce régime qui fait partir nos enfants. Donc le peuple a misé sur Ousmane Sonko pour effectivement atteindre ses différents objectifs. Nous allons les atteindre. Et grâce à la générosité de Ousmane Sonko, il nous a choisi Bassirou Diomaye Aujourd'hui, Nous avons pu parcourir rapidement le projet, mais nous sommes sûrs que la bonne gouvernance sera en bonne place dans le projet. Nous sommes sûrs que la réforme des institutions aura sa place dans le projet. Nous sommes sûrs qu'on parlera d'éthique, qu'on parlera de transparence, mais surtout de réforme dans la justice. Parce que nous avons tous été victimes de cette justice. te loo xam-xam waaye li mu subir mu gën la koo xam Sénégal ñoo bëggal seen bopp Ousmane Sonko tey Ousmane Sonko wane na li tax Sénégal bëgg ko ndax dañuy wax ku añaane sa doone sa deewit ñaaw Ousmane Sonko yéene na nit ñi boppam waaye yéene na nit ñi li mu gën a wóolu ci àddina ki mu gën a wóolu ci àdduna mooy Bassirou Diomaye Faye ay na gor yoo xam ni dama koy bàkkoo toujours par rapport ak ñu nit bëgguñu politique ma ni politique du ku nekk ko mën politique générosité la politique disponibilité la politique yaatu la politique bokk la politique partage la politique def ni nit ki sa bopp la parce que tu es toujours dérangé loo am di nga ko bokk ak nit ñi loo xam di nga ko bokk ak nit ñi kooku mooy leader politique leader yooyu nag ñu ci bëri defar nañ seen mouvement ñu ci bëri defar nañ seen parti yenn sax seen saa yi sax parti bi lëng ci Sénégal ba ci bitim réew am ay objectif parce que kuy def parti am na loo bëgg am na loo yéene réew mi kenn ku nekk jàpp na ni maa gën a yéene réew mi leader yooyu tey ñoo daje autour de la coalition Diomaye Président ba ñu duggee nag ci biir coalition bi amatul mag amatul ndaw amatul góor amatul jigéen ñu bokk benn idéal mooy idéal d'éthique idéal d'abnégation idéal de sacrifice idéal lu bëgg sa réew idéal lu bëgg li fi nekk jóge fi ndax réew mi yàqu na waaye idéalu am yéene defar réew mi dinañ ko defar nag ndax ñu ci bëri Ousmane Sonko lañu ñu wóolu bu yàgg ca ba ñu bokkul ak moom parti bokkuñu bokkul ak moom coalition bu yàgg ca ba ñu gisee ni am na am na xol ci réew mi ba ñu gisee ni ñàkk na lu bari ngir réew mi ba ñu gisee ni dal daj na lu nekk ngir réew mi privé nañ ko lu nekk ngir réew mi teg nañ ko ci deram itam lu nekk ngir réew mi waaye mu nangu ko ba tey réew mi tax newul bu ma dul bu ma bu dul man du keneen Ousmane wanewaat boppam foofu wanewaat boppam générosité parce que générosité du jël xaalis maye générosité mooy loo nekk da koy boole da koy boole ñeneen am na lu mu yéene ci réew mi loolu mu yéene ci réew mi moom la bëgg ñu doxal ko ci Bassirou Diomaye Bassirou Diomaye xam nañ ko waaye ñun ñi am chance xam ko biñ ko xamulee it dañu ni ku Sonko seet mu doy la doy na leen ndax Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye loolu moo tax leader yi bu ñu ko waxee militants yi la ñuy wax parce que leader boo gis dafa am base leader boo gis dafa am ay xarit leader boo gis dafa am ay mbokk leader boo gis dafa am soppe te leader yii nekk tey ci coalition Diomaye président décidé nañ ni kenn ku nekk mooy Diomaye Faye bu nekkee Diomaye Faye nag mooy kenn ku nekk mooy candidat à la présidentielle ay mbokkam dina jóg ay xaritam dina jóg dina dem ci basam kenn ku nekk am na zone bu muy travailler zone booba lañ waa campagne bi di seet leader boobu yor ko dugg ci nit ñi def proximité waxtaan ak nit ñi suñu pro suñu prés suñu suñu daa neex naa jaay produit la boo xam ne soxlawul mën marketing soxlawul jàng marketing pour jaay Bassirou Diomaye ci loyautéem Bassirou Diomaye ci boppam parce qu'il est très structuré Bassirou Diomaye ci yanu projet bii nga xam ne moom la ñuy ñëw jox ko Bassirou Diomaye ci ancré ci Pastef ak li nekk ci Pastef ciy vertu ak li nekk ci Pastef ci jub ak li nekk ci Pastef ci jaar-jaar te ñu xam ko pratiquer ko damay faral di wax ni ñi nga xam ne jël nañ leen dugal leen ñu nekk ay candidat ci yeewi askan wi ku ci gañawul sax candidat bu baax nga ndax Basiiru Habib duma bàyyi ñoo nekkoon muy seet candidat yi di seet ku ci am problème ak justice ñu dégagé la ku ci mës a détourné ñu dégagé la kooku nag bu ñëwee wax éthique ñu gëm ko bu ñëwee wax bonne gouvernance ñu gëm ko bu ñëwee wax projet ñu xam ne mooy projet bi ñooñ ci ànd ak moom fal ko au premier tour parce que amuñu jot tardeel nañ ñu te waa ji war naa dem le deux premier tour premier tour premier tour premier tour premier tour merci beaucoup donc dañuy accélérer rek